pour mu daal di euh, woote dialogue ngir ñu ñu daal di gisee waxtaan. mais justement c'est justement les moments d'incompréhension qui son des moments privilégiés d'ouvrir un dialogue mooy li Senghor doon wax rek réeroo amul ñàkk waxtaan am. mais ndax ñàkk waxtaan waroon nekk laata sax ñàkk di am ndax waxtaan nekk avant muy jël ndogal ne damay abrogé est ce que ñu dugg ci campagne mu woole ne leen lii ak lii am na est ce que duñu dakkal campagne bi ba ñu xool la ñuy def bu ngir yëf yi suñu àggee mun a jar yoon. Macky li muy nekk chef d'État il n'a pas le droit de nous imposer sa vision du processus électoral euh, au niveau de sa phase terminale parce que léegi vote rek des inscription yi def nañ ko vérifier nañ le fichier électoral léegi vote rek des amul droit te moom reconnaître na ko nee na je n'ai pas le monopole de la de la vérité kon est euh, ko. il n'a jamais prononcé le mot report dafa ni élection yi c'est le vingt cinq février man mii ma xaatimoon le décret de convocation du corps mu ne waaye ce qui s'est passé par la suite yéen ñëpp ko gisandoo mu di y'a un groupe parlementaire en l'occurrence wàllu te PDS ëpp fa doole yu yëkkati ay ñaxtu yoo xam ne dañ leen war a may nopp parce que ils ont le droit de faire des observations sur tel aspect du processus ñaxtu yi nag di ñaxtu yu garaaw c'est des imputations de corruption yu ñu gàll ci loosu euh, deux responsables du euh, conseil constitutionnel. muy Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Coulibaly. loolu nag kenn du ko fooye lu day ni juge constitutionnel nga tuumaal ko de corruption Macky Sall nee na ñun loolu duñ ko fooye ndax ñooñu waa Wallu dañuy jàpp ne seen candidat galgal biñ ko galgal ba jàllul awul yoon parce que ñu ngi koy accuser de double nationalité après ñoom ñu ne la preuve que Karim ba mu introduire sa demande de déchéance 2018 la et que il ne gère pas les lenteurs de l'administration française bu France toogee euh, quatre ans après précisément en janvier doo ko def ci journal officiel ne Karim din nationalité française bi lenteur boobu du fatam waaye moom il en avait manifesté l'intention il y a quatre ans malgré tout ñu kale ko et le paradoxe ñu bàyyi kenn ku jàll koo xam ne bindul fenn ne. mais mais kooku je suis exclusivement de nationalité muy muy Wardini mais euh, mais kooku bu ñu fàttali ne recours Karim recours Karim soo amul recours kenn ko dàq. kenn du dàq Karim recours moo ko éliminé. parce que y' a un candidat bi jàpp ne euh, moom dafa am euh, malhonnêteté malhonnêteté ci ci ni nga xam ne noonu la déposé candidature am ndax jàpp na. nee na mu ngi nii la de la date du Gabriel. nee na mu ngi nii la de la date du Gabriel Attal. quelle que soit la date. mais euh, ils ont après ils ont amené la preuve de la lettre de demande de déchéance qui date de 2018 mais kon yàgg nañ ko laaj ñii ñoo yéex a réagir daal di indi preuve daa nekkoon nag sur cette base la ñun jàpp nañ ne suñu candidat i la été éliminé sur la base de corruption de deux membres du conseil constitutionnel Macky Sall ne nag comme que loolu ce n'est pas quelque chose de de léger sérieux la rawatina il y a eu une situation assez paradoxale parce que autant Karim dañ ko téye parce que dañ ko accusé de double nationalité autant Rose nii am double nationalité ñu bàyyi ko mu jàll. ñoom bàyyiwuñ ko parce que amul recours ci moom. mais ku ñu am recours ci yow tey conseil constitutionnel amul amul ay màkkaama yoo xamante ne ñaata pays ñoo nekk ci àdduna bi même Gambie gi nekk suñu nekk suñu ginnaaw soo fa amee passeport ba tu as la double nationalité est-ce que conseil constitutionnel tey ci app bu ko may dana mën a vérifier pays yi nekk ci àdduna bi yëpp ñoo xool ndax vingt candidats yi nga xam ne jàll am nañ double nationalité même loolu xanaa on risque de prendre six mois balaa euh, dafa wax candidats y a neuf points neuf sauts leen di war a franchir quitus fiscal et cetera donc la déclaration sur l'honneur honneur mooy kooku moom c'est très important nga wàcc sa akolaay waxee mais que tu es de nationalité exclusivement française sénégalaise exclusivement sénégalaise Rose daal di vote daal di wax sur l'honneur ne je suis de nationalité exclusivement fekk demeewul noonu alors loolu conseil constitutionnel daal di am euh, négligence bàyyi ko mu jàll mais nu mu amee négligence alors par la suite nag mais nu mu amee négligence waroon nañ ko vérifier mais est-ce que suñ ko vérification boobu. est-ce que am nañu moyen vérifié lañ ko war a def. parce que aussi bu ñu bu ñu ciblé ay pays rek quand on dit double nationalité Malick Gakou nationalité polonaise lañ ko nationalité burundais laa am mais ce sont des pays. te ba tey sax mais loolu lépp ay ay ay mais est-ce que est-ce que est-ce tey man je dis bien mais est logistiquement conseil constitutionnel uti nañ leen pour ñu xool pays yi nekk ci àdduna bi yépp même euh, bi ci gën a ndaw. ñu xool ndax koo xam ne bëgg nga euh, nekk candidat ci Sénégal amoo ci beneen nationalité. waaw xam nga on ne peut pas être plus royaliste que le roi. l'intéressé elle-même mujj na démissionner. reconnaître ne que deux nationalités. Mm-hmm. mu ne pour tout le monde à l'aise je me retire. xam nga kooku ko défendre moom moo nangu ne deux nationalités la def. kon nag am na acte de parjure. parce que auparavant dafa waat ni. mais moo tax ñoo ko ñoo ko koy toppee. kan moo ko toppee. Mm, mais ñu ngi koy toppee ci wàllu yoon ak yoonal. non ñu topp la ak ñu ñàkk la topp. bu dee Séné sénégalais nga. te jàpp nga ne moralement. am nga une probité bu la may nga mën jiite réew waruloo di waat ni. je suis de nationalité te du dëgg. j'ai lu Sénégal nouveau mm. ñu ne yoon toppeewu ko dara elle n'est pas sous contrôle judiciaire te indi na ay preuve ni que lañ koy waxal du dëgg parce que moom tamit comme Karim Wade rek defoon na demande de euh, renonciation. bon alors mais maintenant c'est sur cette base là pour répondre à sa question. Mm. que le Sall nag ne yooyu comme que mënuma ko trancher. ce que je mooy décret de convocation du corps électoral bi ma xaatimoon pour le vingt cinq. ce que mooy ma def un décret d'abrogation de de cette convocation la ba pare nag renvoyer la balle à l'institution parlementaire alors assemblée nationale daje ñoom tamit def li leen yoon may. samp benn commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire nag contrairement à ce qu'on a vu dans la presse oui la commission elle est morte née dissoudre nañ ko kenn dissoudre ko de euh, en matière de droit parlementaire commission d'enquête bu xësee ba atteindre son objectif cest fexee dire fexe ba obtenir l'ouverture d'une information judiciaire sa mission est terminée léegi c'est la justice qui prend le relais alors léegi nag assemblée nationale nag jël daa ne comme que président ne dans ce flou là accusation de corruption de double nationalité yi ñu bàyyi mu jàll ak double nationalité supposé bu ñu kale comme que mënuma cee jël responsabilité convoqué élection la balle est dans votre camp alors quand on leur a renvoyé la balle lan la parlementaire yi def ñu ne premièrement nangu nañ ne élection mënatul am le 25 deuxièmement c'est les députés qui parlent ce n'est plus Macky Sall deuxièmement nu proposons un décalage de la date des élections pour six après y a eu des débats démocratiques gars yi non six mois baaxul day tombé le 24 ou le 25 c'est-à-dire le jour du Magal ou le du Magal beneen député ñëw ne nañ ci yokk trois mois mu daal di tombé le 15 décembre foofu la ñu toll woon alors ñu jàpp ne que c'est pour le 15 décembre coow li bari euh, ñu ne l'Assemblée nationale n'a pas le droit de proposer une date électorale gars yi ne oui effectivement c'est de de la prérogative du Conseil constitutionnel coow amaat parce que coow waxtaan koy réglé Macky Sall ne bon xam nga nu ñuy def na ñëpp ñëw ñu toog mu daal di voté le lundi 26 et le mardi 27 un dialogue national sur tout les aspects du processus électoral c'est-à-dire le choix de la date euh, et cetera alors ba ñu demee nous nu nous, nous remercions la présidence de nous avoir invité ni ñu Abdou Diouf invité woon en 92 ni ñu Ablaye Wade invité woon en 2002 et en 2007 ñu ngi remercier présidence Macky Sall invité nañu alors ba ñu demee le lundi 26 à Diamniadio trois séances de travail moo am benn bi à onze heures le chef de l'État a reçu évidemment ceux qui avaient accepté de répondre à son invitation les candidats dont les dossiers euh, valides nga xam ne validé woon nañ ko conseil constitutionnel à midi mu daal di recevoir euh, ñi euh, accepté woon de venir au dialogue les candidats qui s'estiment spoliés waaw te ñu leen wax les candidats recalés ba mu recevoir taataan xalaatu ñëpp ci les acteurs du processus électoral ngoon gi nag si la ñu recevoir ñun à 16h ñun ñi nga xam ne duñu candidat amuñu candidat c'est-à-dire la société civile daal di ñu restituer jataay ya mu amoon le matin ba ñu pare trois commissions ont été créées euh, benn bi c'est la c'est une commission de proposition de date boobu le mise de l'intérieur Sidiki Kaba moo ko présider Euh, de de de parce que werante amoon na sur la date. deuxièmement euh, am na une commission de la transition parce que bu Macky Sall waxee ne day bàyyi le 2 avril te date bi dialogue bi proposé c'est le 2 juin kon am na deux mois yoo xam ne Sénégal day nekk un pays sans président te loolu xel xel demu ci ñu ne kon comment gérer cette transition alors commission boobu euh, Ismaïla Madior Fall moo ko gérer troisième commission bi nag ñu ngi ko tuddee commission technique boobu le directeur général des élections euh, Thiendella la moo ko géré alors ñun nag yàlla dimbali nañu ba participer nañu euh, parce que moi je pouvais pas me démultiplier <laughs> donc j'ai été obligé d'appeler le responsable de Jamra qui habite à proximité de ñaajo c'est-à-dire cellule Jamra bu Bargny hmm. participer nañu ci yëpp ba ñu pare ils m'ont donné les responsables de Jamra leurs euh, euh observations il me revenait à moi en tant que coordonnateur de la participation de Jamra au dialogue d'en faire la synthèse synthèse bi pare na ni démb ci altine yi les présidents de commission yi ma tudd Sidi Kaba euh, pour la date et puis Ismaïla Madior pour la transition ak Thiendella Fall pour l'aspect technique ni ñuy demee déposé les conclusions de leur rapport ñun itam jox nañu un canal boo xam ne bu ñu ko fa jaarale président jot suñu mémorandum kon le président a reçu le mémorandum de Jamra sur la proposition de la date et sur la, euh, la notre vois. vision de la transition waaye nag ñun on a surtout insisté sur notre rejet catégorique du projet d'amnistie daanaka les trois quarts de notre mémorandum fa lañ ko teg fa lañ ko consacré parce que nee nañ ko yëpp baax na mhm. discussion démocratique pour se mettre d'accord sur la date pour se mettre d'accord ce qu'il faut faire pour la transition yëpp baax na waaye daal mënuñoo comprendre yi fi xew diggante février 2021. Mhm. ba février 2024 ñu xëy rek passé ci un coup d'éponge. mais mais ma li ma la bëgg a laaj foofu noonu laata ñuy àgg sax ci ci ci amnistie bi mais dañuy wax ci ci wàllum date léegi est-ce que date boobu léegi nga xam ne président moom moo jël loi abrogé euh, bis bi ñu ko waroon njëkk jàpp ca njëlbeen est-ce que li gënoon yoon moom mooy pour mu nekk euh, abrogation boo xam ne xëy na sénégalais danañ ko mën a accepter mooy mu woo ñi nga xam ne tey ñoo waroon bokk ci ci yi mooy candidat validé yi déjà de un parce que ñoom ils sont les principaux concernés par la date parce que ñoom ñoo waroon dem concourir mu woo leen ku ci nekk mu laaj la koy wax itam moom ne conseil woo naa candidat yëpp ku ci nekk jox na ma man maa jël dogal mais moom dafa jël dogal ba pare soog a woote mais woote boobu noonu est-ce que itam ña nga xamante ne ñoom la ñu xañ ñu ñu bañ a dem élection est-ce que ñoom itam mënuñu leen nangul seen position ñàkk bañ a dem. waaw xam nga boo wax ni que euh, dialogue bi ñetti phase la